bisimilahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji eh, ci teewaayu kilifa yi di njabootu Cheikhul Khadim gi nga xamante ni eh, teew nañ ci jataay bi incha allah di ngeen dégg ñu yëkkati ay kaddu mu jëm ci ndigal loo xamante ni mi ngi bàyyi ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides muy bis bu am solo jëm ci tàmbalik liggéey bi nga xamante ni moo jëm ci mu jàmm Cheikh Ahmadul Khadim di complexe Cheikh Ahmadul Khadim bi nga xam ne ay at ngi ni ñu liggéey bi altine juróom fan ci weeru février dëppoo gi itam fukki fan ak juróom ci weer wi nga xamante ni mooy weeru rajab bii ñu nekk incha allah ci la sëriñ bi fas yéene ñu door liggéey boobu loolu moo waral kilifa yu tedd yi yëpp ngeen gis ñu teew te sëriñ bi fétalé leen liggéey bi ak li nga xamanteni ni ci aju kon dinañu déglu seeni kaddu ñu léral ñu ni nga xamanteni ni bis bi ni lay tëddé ak ni nga xamanteni ni la ko Cheikh Mouhamadou muntaha bëggé ak mbolém luñ ci wara xam ci ay xabar ak itam luy tax ñu mëna xam lan mo wara doon suñu taxaway ci bis bi ñuy mu doon juróom benn fan ci weeru février atum 2023 depo itam fukki fan ak juróom ci weeru rajab di ndayu koor atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci ati gàddaay gi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe murid yëpp ak bokki réew mi yëpp ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci turu ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi fi jëmmi Serigne Touba tey ci suuf di ñaan yàlla suñu borom mu dolli aw fanam dolli ak wéram dolli kàttanam ba mu mën a mottali mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam lépp di liggéey Serigne Touba kàddu yi nag kàddu yi yëgle ak fàttali ak xamle rek la mu doon kàddu yu gàtt yu gàtt kon sëriñ bi nee na ginnaaw bu mu leen sant leen gërëm leen li jëm ci kàddu yi rek kàddu yi nag damay ubbi rek bu ma noppee Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké ibn Cheikh Mouhamadou Fadil dana leeral ci lu gën a yaatu bis bi nga xam ne ci lañ jëm ak taxawaay bañ ca war def ak niñ ko war a doxale lépp dana ko leeral moom bi nga xam ne li ñu yëgle lépp ci loo xam ne ko sëriñ bi teg moo ànd ko ñu ko àndal te ñi ci jiitu di daaira Rawdu Rayaahiin ak mboolem ñeen ci jàppale bu noppee Serigne Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñ daaira Hizbut Tarqiyyah bu noppee moom mi nga xam ne Cheikh Mouhamadou taxa dafa joxe ndigal ne lépp lu ñuy liggéeyee Serigne Touba nañ leen ci jiite ñu ne ca bopp ba kon taxawaay bis bii ñu war ci am taxawaay bu rëy ak ñi ñu ko war a àndal mooy itam dana jotli kàddu yu seere ak kàddu leer la kon bokk jullit yëpp ak bokku bokk taalibe yi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp kàddu yi fekk nañ ci jàmm kàddu yi nag nee na la ci jëkk mooy sant yàlla ci yàlla mi nga xam ne mooy def di dindi ni mu koy faral di waxee ta lii nga xam ne mooy bis bi mu jëm di bis bu ko ñor lool kon li muy jëkk sant yàlla rek. di sant Serigne mooy ci fekkeloo gi ko suñu borom fekkeloo ndax muy somb wu di liggéey wu rëy nga xam ne manis na wax ne moo desoon ci naal yi fi Serigne Touba bàyyi woon yàlla def nee na ci moom ci njortam dafa amoon yéene tàmbali ko rek waaye xamutoon wan waxtu lay àgg ak ku koy àggale kon nag yàlla suñu borom ci kàttanam def. liggéey bi dem ba li ci ëpp àgg ndax lépp nag sotteegut ndax université sax xam ngeen ne du àgg waaye li ci ëpp àgg ba wari sa tàmbali liggéey bi mu bokk fas ko yéene tàmbali nag ci weeru rajo bii nga xam ne ñu ngi tey ci bisu bu njëkk bi te mooy bisu màgg di weeru tedd woo xam ngeen woo xam ne xam ngeen ne Serigne Touba fonk na ko lool ba dëkk bi Touba siw na sax ne ci bisu tey bii la ko sanc Euh, njabootam gépp itam bàyyi woon ko xel ak gane ci àdduna muy taw tawféex kon bisu boobu yi nga xam ne mooy altine tey ji bu delsee ba delsiwaat war wara toll le 6 février ci la sëriñ bi di ñëw teew ubbi ko njëkk a dalal ki nga xam ne moo fas yéene njëkk a tàmbali ci daara ji kon bis la boo ne bisu ndam la bisu sant yàlla la waaye bisu ndam la ci yoon murit bisu puukare la it ndax lii nga xam ne tey yàlla def na moom la ñu ubbi muy daare cheikhul xadim ju mag ji nga xam ne daara la joo xam ne xam ngeen ne ni ko sëriñ Ahmadou di waxee romb na université waaye modèle éducatif la boo xam ne matale na man la koy faral di fàttali waxtu ne mu doonoon somb wu rëy nag woo xam ne سرين الهاج مباكي بسو شي لترم بوبو ليرال نا سي ميبر ييغا خامني سرين توبا ييني وور نكو تا يالا ديف جوتو كو ديف با نيبي سي توبا با سي جيك دي جمعه توبا اك يونو مكه nga xamni ñepp xamu nañ la ko galam ko juma ji tam ñim fi bayyi won tam le ci cheikh mohammed mustafa def ci jom ak yitte tambuliko ko ci kàttanu suñu borom itam mu mot mate ci loxol Cheikh Maodo Fadil ñi leen wóotu ginnaaw bi ñëpp itam kenn ku ci ne def na ca yitte jëm ca war a def Cheikh Abdou Lahad xam ngeen ni yokk jumaa moo ko ci dolliwaat kon loolu lépp yàlla suñu borom matal na yéen ya yoonu màkk bi itam xam ngeen ne euh, maam Cheikh Anta àndoon na ak Serigne Bakka Bousso ak Cheikh Maodo Fadil. ngir amoon yéene yu mottali sëriñ bi yéeneem jooju nga xam ne bokkoon na ci ponk lislaam yi yàlla def mu amoon gàllankoor bu ko def kon ba ca desaatoon rek mooy binaa u madrasatin takunu rihlatu sénégali ilayha fi l ulumi l arabiyati chariyatiha wa adatiha muy daara joo ne fune ne la di bàyyi ko ñëw ngir di fi jàng kon muy sombuuri boo xam ne yàlla suñu borom def na ñoom jabaru Sëriñ Tuubaa gépp amoon yéene taxawal ko ba xam ngeen ne Cheikh Mouhamadou Moustapha daara ji yéene woon na ko ba moo daan jàngaleel boppam am ne jabaru Sëriñ bi ñoo xam ne moo leen jàngal ak Cheikh Mouhamadou Fadil itam bi mu ubbee jumaay Tuubaa ji xam ngeen ne daara ji mu fa ubbi woon mën naa ne jataay bi bari na ci ñoo xam ne fa lañ kon loolu lépp ci jëmmal mébét ba la Cheikh Abdoul Ahad nag yàlla def na liggéey bii Cheikh Mouhamadou Mountakha di war a tàmbali tey naaloo ak eh, tàmbali liggéey bi ci moom la tàmbali woon mu miire lu mat daanaka lu jege kilomètre muy sombu rëy waxe ne waxoon na ne waxoon na lam ci jubloon muy daara ju mag joo xam ne na fa jàngale xam-xamu diine dafa jàngale ak taalibe kon mooy lii ñu defaat ginnaaw mi itam Cheikh Abdoul Khadir Serigne Cheikh Mbacke mi ab xalifa am wax na ma ci làmmiñam ne ma bi mu koy tàggu di dem umra neewoon na ko samay yitte jëpp maa ngi ko bëgg jëme ci daara ji nga xam ne ko baax ki amoon na yéene ja ma fexe ba taxawal ko moom. ginnaaw mi itam Cheikh Salif Mbacke xam ngeen ne ci bi mu nekkee Serigne Touba bokkoon na ci naal yi mu a def. ba yàlla def mu liggéeyoon ko ba li ci ëppoon àgg bañ ubbi ko mu tegoon ko ci loxol ak njabootam di Serigne Moustapha Mbacke Saliou doomam ak ñaari rakam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke euh, Serigne Souhaïbou ak Serigne Djili Mbacke Cheikh Abdoul Ahad kon yooyu yëpp ay naar la woon yoo xam ne ñi leen jëkk defoon nañ ko seen ginnaaw itam Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacke mi nga xam ne moo njëkk wuutu Serigne bi ci ay sëtam xam ngeen ne ci waxtaan yi njëkkoon wax bokk na ca bokk na ca yéenam ak Cheikh Sidi yàlla def na mu xalaatoon ko ba njëkkoon a defar panaay ba yónnee woon ma ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi teg ko ci loxoom ne ko jëbbalaan na ko lépp kon mel na ne yëgoon na ne naa lu ci loxoom lay sottee kon nag moom mii fi ne tey yàlla na ko fi yàlla yàggal te gën dolli ak wéram mu am tawféex yi nag kon. mottali seen naaj yooyu yëpp ba yàlla def lépp nekk waaqia kon loolu ak cant bu mag la moo tax Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ne bis bii nga xam ne ci lañ ko war a bis bu ko gën a màgg ci moom ci kaw suuf kon bis bu rëy la bis la boo xam ne kon yéene ju rëy ay yitte ju kawe waaye nag ngir xam xeru taalib yi ak xatu jamono tax na mu wax ne ndax bis bi dafa nekk ci diggante ñaari xew yu xat yu màgg ci yoon wurit muy màggalu Poroxaan ak màggalu Kazu Rajab kon mu wax ne diggante boobu kon woote xeju fi kon woote bi woote yégle la ngir ñëpp xam ne liggéey bi tàmbali na waaye ñi jege rek xëy na te am euh, féexug mën a ñëw mën nañ ci ñëw waaye nag yéglewu ko ngir bëgg taal bi yëpp ñëw ndax neen loolu bu amee màggalu Tuubaa lay doonaat te diggante ñaari màggal yi xew-xew bu dee noonu xaju fi kon loolu na ko ñëpp xamee noonu waaye nag eh, ñëpp am yéene rek bis bi xam na bis la boo xam ne daal bis bu ko gën a màgg coono murit amut moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa nee na bis bu ko gën a rëcc amut kon na ko ñëpp waajal te fonk ko te xam ne liggéey bi tàmbali na ba sore ba agsi waaye kon sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp loolu soññ na ma ko yoon nee na naa ko santal ñi nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba ñëpp bàyyiwul kenn ak mboolem ñi nga xam ne seen maam yooyu ñoo laxasaay woon gàddaay ñëw topp Serigne bi ànd ak moom liggéey bi ak mboolem taalibe Serigne Touba nag kenn xam naa suñu axul mooy gën a dugg ci tafasil yi waaye Serigne bi nee na sant na ñëpp gërëm na ñëpp ndax nee na xam na ne liggéey bi fi ñu ko wootee xat na jamono xat na waaye def nañ luñ mën ak luñ mënut. ba liggéey bi seen tuutoon mu ko na gënee dana jeg ak si bi kon nag loolu nee na mi ngi ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam le yi rek ne euh, wàcc amut noflaay amut ndax nee na naa soññ bokk taalibe bi yëpp ñu xam ne liggéey bi bu demee ba toll fii itam buñ demoon ba ne àgg na sax ba sotti coleetit ñaan nañ nañ sóoraale ne li ci kanam mooy ëpp fuuf li nga xam ne weesu mooy la ko yor ci ña fay ña fay nekk ak ña fay jàngal ak ña fay dëkk kon sarsu rëy la te loolu nag taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp nañ xam ne ñun ñëpp ci suñu suñu loos la ne kon na ko ñëpp bàyyi xel nga xam ne liggéey la boo xam ne doo tàmbali amul kon donte nag ñi nga xam ne ñooy nguuru Sénégal am na lu leen ci war xam naa Sëriñ Ahmadu Badu dana ci gaay del ndax euh, daara ju toll ak liggéey bu toll nii ci dëkk bi nga xam ne école yi publique amu fi kon jaadu na ñoom it ñu xam ne am na lu leen war ci ñiy jàng ak ñi war a jàng ci dëkk bi kon ñoom itam luñ ci def rek dañ xam ne seen warteef la ndax tuba li fi dëkk li fi dëkk mën na ñaari millions nit ñaari millions nit yoo xam ne nag amul école publique kon jàpp naa ne état bi war naa xoolaat donte fii Tuuba de dëkk boo xam ne bokkut ak yeneen dëkk yi war na yoo xool nu ñuy fexe ba sóoraale ko ci ñoo xam ne. li leen fi waroon ci jàngalekat ak dëkkali ay ñiy jàng bari na kon nag bu fekkente ne ni dëkk bi tëddee tax na mënuñ ko def noonu tam war ñoo xam ne kon Touba buñ koy natt université Touba warut a mën a bokk université yi Sénégal kon loolu itam ñoom ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te eh, comme amoon na yéene moom mi jiiti réew mi ne da defar sëriñ bi waxoon ko ne ko tabax tabax bi na ko bàyyi taalibe suñu Touba yi ndax mën nañ ko lam ko leneen lim ci war a def na kon. ñu ngi ko koy fàttaliwaat di ko fàttali ñi nga xam ne joxoon na leen ndigal ci ñu war koo def ñoom itam ñu góorgóorlu ci ba def ci yitte ngir xam ne lii kat mooy sasu Cheikh Amadou Mountakha neewoon na awuma ñaari yitte awuma ñetti yitte jë wenn somb la amu wi kon nag képp ku koy dimbale rek war nga xam ne lii mooy li jëkk ci li ko gën a kon nag mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey rafet njort rek xam ne taalib yi moom de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon ca waxtaana mu mujj mooy xam ne xam le ne euh, xol yu nangu moo mbay mu nangu xol yu nangu gën a wóor te xol yu nangu ne Sëriñ Tuubaa duñ gàntal ndax xam ngeen ne fii ko sëriñ bi wootee keneen ku ko woote woon ci li fi xew mooy corona bi fi xew ak crise bi am ci àdduna xam ngeen ne njàmbaaru bi Sëriñ ay moo tax mu agsi kon nag la ko indi ba fii rek am nañ yàqit ci ne la ci kanam moo ko yóbbu kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ñu ngi yëkkati sunu kàddu di ko tàmbalee ci ab siyaar ak i ñaan jëmale ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñu borom bàyyi ko fitam te may ko wér ba li mu yéene liggéeyal sëriñ bi lépp mu mën ko def nu ma ko bëggee te naandu ko ak moom di ko di ko sant di sant borom bi subhaanahu wa taala di sant cheikhuna al xadim radiallahu anhu waaye di sant cheikh muhammadul muntaqa mi nu boole ci liggéey bu màgg bii waaye di ko santale moom cheikhuna al xadim radiallahu anhu di am mbégte mu rëy ci jataay bii ci barab bu tedd bii di kër Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu waaye ci bis bu tedd bii ci weer wu tedd bii nga xam mooy benn panub rajab ni ko sëriñ bi waxee léegi rajabul fard ku ne xam ni mu toll ci lislaam waaye ci weer woo xam ne itam ci la al isra wal mi'raj xewe woon nga xam ne kéemaan gi gën a màgg ci lislaam ci weer wi la amee woon teraanga ji gën a màgg ci lislaam borom bi subhaanahu wa taala ko ab jaamam muy sallallahu alayhi wa ci weer wi la amee woon waaye secret wala mën nañu wax ne waxtaan wi gën a màgg wi gën a mën a masa am diggante borom bi ak jaamam muy sallallahu alayhi wa sallam ci la amoon fa awxaa ila abdihi ma awxaa jege gi nga xam ne ab jaam gën mas na koo jege borom moom subhaanahu wa taala ci la amee woon fa kaana xaaba qawsayni aw adna kon mu doon lu ama am solo ñu di ci tambali nak lo xamne moy mooy kayu Cheikhuna al khadim radiyallahu anhu bi nga xamne ni ko serigne bi mo do non dafa bokkoon ci li nga xamne serigne bi man nañu wax ne mebeton nako waye borom bi subhanahu wa taala itam defalon ko ko ba nopi mo bind ko wax ni sunu borom defal na ma bi nonu ko serigne bi melale bepp xam-xam bu am njëriñ ñu mën ñew diko fi jang ci waye kep ku bëgg jang itam man ñew ñew jang ci fi ba nopi yaatalat ko ba ñepp man ci jot Euh, ni ko sëriñ bi waxee it mboolem ñi nga xam ne ñooy njabootu sëriñ bi ku ne fa nga ci tollool fa ci jamono toll def nga ci loola Cheikh Mouhamadoul Mountakha bi mu ñëwee ni benn yitt bii la am ko yëkkatee nag ñëpp ànd ko ak moom kenn ku nekk rek sa kem kàttan nga ànd ko ak moom ñi nga xam ne dañoo jëm ci wàllu jàng ak jàngale am taw feexi jàpp ci liggéey ba waajal ko waajtaay woo xam ne ni nu koy waxee daara lañ koy tuddee daara Cheikhul Khadim moo ëmb lépp université Touba ngir barkeeloo ko ci kàddu Cheikh Abdoulaye Lahad yu tedd yam waxoon ne damay defalal sëriñ bi ab université waaye mënees na ko tekkee ci jamono ji itam modèle wala système éducatif wala manhaj tarbawi bu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu te boobu mooy boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax sëriñ bi ci kàddoom yu tedd yu njëkkee dafa waxoon ne damaa bëgg jàngukaay boo xam ne dafay dal ci kii dafay tàmbale ci kii dal baasin ba ci njobaxtan la loolu moo tax ñu tudde ko manhaj génn ci nag mboolem xeeti njàng yi nga xam ne dañoo am njariñ waaye tàmbalee nag ci li nga xam ne mooy ndàmmal xam-xam mooy nday xam-xam yi moo ëmb xam-xam yëpp mooy alxuraanul karim te mooy alali sëriñ bi mooy léppam sëriñ bee ko moom népp nu ñu moomee nit mu dagan wax népp nu ñu nit di moomee mbir mu dagan ko wax na ne moomee na ne alxuraanul karim malaktuhu hadiyatan wa sadaqa wa thamanan li dimu nafaqa sëriñ bi nag wax ne bis bi ni ko Cheikh Ahmadul Bachir waxee noonu la toll ci moom li ñu fa yéenee tàmbali nag mooy ñeenti ñeenti xaaj ci jàngukaay bi bi ci njëkk mooy alquranul karim ni ñu ko waxee bi ci topp mooy njàngum majalis nga xam ne ku ne xam na ne fii ci dëkk bi loolu moo fi sàmm diine ji wala ci réew mi sax laay wax ba mu yegg si fii mooy tax nu xam alquranul karim ni ñu koy jëfandikoo waaye nag na ko sëriñ bi daan jàngalee ak ñam jàngaloon nañ doon jàngalee noonu lañ ciy jàngalee waaye tolloo la koog fi nga xamne fi la jamono tollu batay bi ci topp mooy kullee dirasatil islamiyya bi nga xamne mom moom itam lépp luñu jàng ci jangum l'islam mu kawe mi dañ ko fay jàng waye nak dañ ko deppele nak ak njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mi nga xamne mom lañu fi bayil te sam nu ko tek ci itam lo xamne kenn xam ku ne xamne ne ne ñak moy walu wer gu mom itam ñu tàmbali fa jàngukaay boo xam dañ fay jangale walu wàllu waye xol nak li nga xamne mom la dëkk bi soxla région bi gën ko soxla réew mi gën ko soxla muy yegg di gem ba ca kaw loolu lañ fas yéene tàmbali njàng mi muy wéy nag ku ne xam na ne alhamdulilah bi ko sëñ bi waxee tàmbali waxee ni ma ko waxee ñii jëngutu ci wàllu xam-xam ñëw nañ waaye ñi ngi yëngutu ci wàllu xalaat ñëw nañ ci àdduna bi yëpp rawatina biir réew mi waaye ñi nga xam ne itam dañoo jël seenu ñaq di ko jox yàlla jaarale ko Cheikhul Khadim tam wóor leen ne denc bu dul yàqu la ñooñu itam ñëw nañ moo ko yegsil fii yoonu murit luñ mas a def ci loolu lañ ko def tàmbalee ci jaa jumaay njaareem ñëw ci raay bi ñëw ci jumaay Tuubaa ji daari kaamil Masaalikul Jinaan ni ko sëñ bi waxee léegi waaye semb wi nga xam ne nag bi ko sëñ bi yëkkati fi jamono toll ñu bari seen i koppar jàppoon nañ ne denc rek ca war ak di ko koppar di ko di ko di ko sakkanal waaye murid nag daa mel ne booba lañ gën a sóobu ñoom gën a jaayante fas yéene liggéey sëriñ bi du taxaw ñaari at yi gën a metti ci àdduna bi ak ci Sénégal ci la liggéey bi gën a doxe te lépp murid yee ko def defal ko sëriñ bi kenn da nga ciy gis jëf yoo xam ne sax da ngay xam ne lii moom moom moom kéemaanug kéemaanug kéemaanug Serigne Touba rek la Serigne bii ni mu ko waxee woon wax ne moom benn yitte bi la am lu ko waaye ma sa jox liggéey bi rek la jàpp ne moo ci yàlla yàlla xanaa lim ci yëkkati di ko dimbalee jaam yi te noonu la ñu waxoon ci njëlbeen ga ñaari yëf rek a fi am liggéeyub Serigne Touba bi ak dimbale jaam yi loolu defe naa ko ne mën na koo seede nga xam ne kon ku ca defoon saw ñaq lu mu lu mën a toll rek bu ko xeeb waaye lu mu bari bari tam bu ko naw xam ne borom bi boo koy lebal nanga nga tollule ca lam la dénk lam la may ca nga lebal waaye buy fay moom nam toll la lay fayee waaye liggéey bi sëriñ bi yéeme na liggéey bi yéeme na ñi nga xam ne dañ doon indi di yët sëriñ bi ni ma ko waxee luñ ko yët mu dugal ko foofu waaye ñu ñëw nag tobbiwaat ay sas ca biir liggéey ba def ko def ko ci anam goo xam ne mucc na ay ku ci ne la nga waxoon ne sëriñ bi ne moom laa bëgg a ku fa ñëw xam ne jàppoon nañ ne du du du du yegg si foofu kon ñoom tam loolu dañ koy seedeel sëriñ bi seedeel ko mbooloo mi ne nag jàpp nañ ne bu fekkoon daa am lu ñu waroon a def dañ naan ful nañ lañ waroon def ñoom maanaam fu fekk lu warteef la woon daal romb nañ warteef fa tey nag sëñ bi daa waxoon ne damay tàmbali damay tàmbali liggéey bi ku dem ma dem ku demul ma dem loolu murid yi dañ ko dégg bu baax daal di fax topp ci moom kon nag kenn ku ci nekk nag la ca sa warteef war nga ko def sëriñ bi wax na ko léegi jàng ak jàngale moom ku ne xam na ne état moo ko war a def rawatina université waaye murid yi moom duñ na kenn ci ndigalul sëriñ bi sëriñ bi itam kuy def ci lu jëm ci bindee fi jàpp nañ ne ku ca ñëw moo xam muy état muy keneen moom ngay jàppale kon ñoom itam ñu ngi leen di séntu bu baax baax ñoo xam ne nag tabax yi murid di def nañ ko waaye doxin wi nag day laaj koppar yu bare bare bare te sëriñ bi daa def yeneen i liggéey kon jàpp nañ ne yi nga xam ne waxoon nañ ko sëriñ bi yëpp ñu ngi koy séntu waaye dafa jàmp nag dañ ko bëgg daal di am ndax kii war a jàng mënee su ko ne négal ba déwén nga soog a tàmbalee jàng ki tàmbalee jàng itam mënee su ko ne nag lii daa manqué da ngay toog ba fekk déwén ak ki déwén dëgg la dongay daara lañ lu baree bari mën nañ ko muñ doxé ca kem katan waaye nak li ñu ngi soñé dal bu baaxa baax ci nga xamné ne lu wara am ci jangukaay bi la ndax yu Sénégal la jàngukaayu julit yépp la waaye mi réew mépp la itam ndax liñ fi jangé bépp xam-xam bu am jani, dañ ko fi jangé moy xam-xamu diine bi lal xam-xam yépp waaye métier yi nga xamné réew mi da ko soxla aduna bi soxla ko loolu itam mbolé métier mo xamné ne soxla ci dëkk bi inshallah taala des ko fay jangalé difa tagat ñi nga xamné sax yoron nañ seeni métier ci bëkk ko gëna ñoom itam ñoom ñëpp am nañ ci wàll kon sëriñ baa ngi yëgal ñëpp ni ñu ko waxee ne liggéey baa ngi tàmbali incha allahu taala waaye liggéey baa ngay wéy itam bu ko defee nag képp koo xam ne rek defoon nga ci te yàlla man loolu lu ko weesu nga nga yokk ko xam ne denc bu dul yàqu la man da la si yuqridu llaha qardan xasanan fa yudaa'ifahu lah wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa xayran wa a'zama ajra nga xam ne kon denc nag boo jaarale Sëriñ Tuubaa moom bàq bu tooy la rek bàq bu tooy la rek boo xam ne moom loo ca loo ca ji dana jeb bi dana meññ liggéey bi itam ni ko taxawalee sëriñ bi dafa doon de garab goo xam ne dafa am ay reen ndax Cheikh Ahmadou Mountakha dafa ñu doon wax ñaari baat mooy asala wal muasara asala bi nag mooy reen yi day saxu ci lislaam ni ko Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu jàngalee te loola mooy ni ko sallallahu alayhi wa sallam jàngalee rek dara mbutewu dara yonent bi sallallahu alayhi wa ah, cosaan li foofa la màgg nag waaye am ay bànqaas yu bari yu yaatu bànqaas yooyu nag day law fépp fo xamne xam-xam bu am jariñ ma nga fa xam-xam bobé lay indi bindé fi yàlla yi jariñoo ko doomu aadama yi jariñoo ko rawatina murid yi nga xamne dal kon njàngalem Serigne Touba lay sam mi nga xamne moy njàngalem yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dafa tollook jamono fi jamono tolli fa ca lu bax toll fofu lay tambalé di jëm di wudlum lum ca yokku mu jëm ca kaw. diko yëgal itam kilifa diine ci réew mi. toroq suufiya yi yu mag yëpp toroq suufiya ndak ci réew mi yëpp Serigne bi mi ngi len ko yëgal. kenn ku nekk mu ngay teg loxoom yëgle bi ci loxoom mu jottali ko ko njabootam gépp ñu xam ne ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk di ko yëgal mboolem al bi yëpp nga xam ne kon ñëpp daal ñoo ko bokk. di ko yëgal itam mboolem association islamique yi nga xam ne ñoo nekk biir Sénégal ndax daara Cheikhul Khadim la te mooy daara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñun ñëpp ñoo bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon ñu ngi ñaan suñu borom ñu fekkee bis bi ci jàmm ak salaam bàyyi ñu fi Cheikh Mouhamadul Mountakha nu santaat ko nag santaat ko. mboolem taalibe murid di sant ko kañ ko jaajëfal ko gërëm ko ci liggéey bii mu yëkkatil sëriñ bi te boole nu ci yaatal ko it ba ñëpp mën cee bokk kenn ku nekk mën cee dugal sa loxo ak noo ko mënee moo xam xalaat la moo xam ñaq la moo xam jëf la moo xam alal la waaye loolu lépp rek ni mu ko waxe denc bu dul yàqu la boo xam ne ku dugal ci sëriñ bi nga xam ne sunu borom daan nangu léppam na la wóor ne fa ko denc du yàqu te fam la koy fayee dara du fa ñu ngi sant bu baax di gërëm السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دي سنت سونو بروم تي ليغا خامني توفيق رك لا واي دونو لو اب جام من فاغول بوبام سونو يو تيد يي كاد يو ني جوتلي نو دونغ ييب دغ موي وال اورغانيزاسيون مو تي دونال دارا توب تي غيناو سونو يي sax ci yaar rek imtisaalul awaamiri wàcc naa bul manaahi ñun dong looloo ci suñu wàll ndax loolu mooy yëwee na lépp organisation boobu nag ñuy sant bu wér Cheikh Mamadou Bachir mi yor kàddug sëriñ bi ak sunu sëriñ bi nga xam ne euh, kàddoom yi yóbbuwaat nañu fu sori ci li mu wax ci euh, mu jàmmaaw bii nga xam ne euh, jàngukaay la boo xam ne kenn sañu ko tuddee université ndax dafa ëmbaale université ëmbaale leneen loo xam ne da nga xam ne sëñ Tuubaa rek ko am muy sëñ Ahmadou Badawi kàddu yooyu dafa mel ni waxaaleel nañ ko njabootu sëñ Tuubaa gépp waaye waxaaleel nañ tamit mboolem seex yi nga xam ne ku ne xam ne ne fu sëñ Tuubaa jógee rek ñoom it dañuy topp topp ci ginnaaw ci jëf ak tamit ci soññe loolu moo àggale liggéey bi fii Cheikh Mamadou Bachir mi wax ne Hizbut Tarqiyyah ci wàllu organisation bi ndigal li ci sëriñ bi wax muy lu rëy waaye ñuy xam ne ne Hizbut Tarqiyyah moom day lu yaatu loo xam ne man gisuma dongo bu ci bokkul man ñëpp ñoo ko seq moo tax nag fi saa si li ñu daal di def mooy jóg nañu dem seeti ñi nga xam ne dañ daan ànd ak ñoom liggéey naka jekk ndax biss yu mag yi nga xam ne yoonu murit daf ko daan def yu mel ni euh, bisu xaside yi àdduna di fi daje naka jekk am na ñoo xam ne ñoo daan ànd liggéey bi ànd organisation bi defee ko noo xam ne mooy tax dara du sooxe su ma waxee loolu su ma tuddee muxaddamatul xidma ñëpp dinañ ko xam ci jumaa ji dinañ ko ànd ak ñoom ndax gani sëñ Tuubaa yi ñëw ci bis bi ay diplomate dina ci am am na ñoo xam ne ay professeur d'université la ñuy bàyyi ko bitim réew am na ñoo xam ne tamit ay délégation officielle yu jógee ci état bi wala am na ñeneen ñoo xam ne ay kilifa la ñuy bàyyikoo yu ci gox yu fasanti ko bu ñu dikkee ni ñu war a accueillir ku ne xam ne ne waa Muxaddamatul Xidma am nañ ci expérience leneen lu bokkut ak loolu it ku ne xam ne ne Rawdu Rayaahiin ñoom xam nañ ne dañoo topp ci ginnaaw sëñ Axma mii di def liggéey bu sel ñoom sëñ Samb Bousso kon noog ñoom noo ngi gisee di takk di nos ngir lépp baax yamul foofu boo jëlee wilaya ñoo ngi yëgoo ñoom ndax bis bi euh, nii sëñ Mamadou Bachir waxee yaakaar naa ne taalibe yi nañ ko déggee xel dafa taseeg ñaari xew-xew yoo xam ne diggante ñaari xew xew ñaari xew-xew yi muy màggalu poroxaan ak lii nga xam ne mooy màggalu Kazu Rajab te itam boo xoolee ak weer wi ak jamono ji kon xëñ na kenn mënut a wax ne ne ñëpp ñëw waaye nag ku ne xam na ne sëñ dara am xajul fenn kon wàccaay wi waruñu koo jëlee noo xam ne dañuy foog dañuy ñàkk a foog ba tax bu mbooloo mu ñëwee duñ ko lijjanti ndax établissement recevant du public dafa laaj sécurité moo tax kon sëñ Mamadou Bassir boole nañoo gouverneur boole nañoo préfet tàmbali nañoo liggéeyandoo ñoom ak mboolem comité de pilotage bi ngir lépp lu ci war ci wàllu sécurité ñu def ko. ñu bëgg a xamal dongo yi itam ne dina am ay plateau plateau yi itam liñ ci jublu mooy mottali ay leeral mottali leeral yooyu dina dimbali nit ñi ñu xam ne masalan buñ nee buntu bi nga xam ne mooy buntu penku bi nañ ko jagleel gan ñi ak kilifa yi ak ñi nga xam ne am nañ ay mandarga yu ñu leen jox muy ay invitation wala yooyu loolu suñ ko waxee mbooloo mi dinañ xam ne buntu masalan gànnaar. wala buntub saalum wala buntub tamit euh, sow yooyu suñ ko xamee dongo yi dinañ xam suñuy ñëw fan lañu duggee euh, muy yoo xam ne ay matuwaay la yoo xam ne incha allah dina amaat ay plateau yu ko gën a leeral waaye lépp dañoo bëgg mu nosu suñ ko defee dina doon ndimbal bu baax a baax a baax a baax ñuy euh, wax na it programme bi faw dinañ xam ne bis bi dafa am waxtu mise en place bi suñ nee masalan fukki waxtu

dina am loo xam ne ci wàllu protocole ak wàllu hébergement ak wàllu taxawu gan ñi nga xam ne dañuy bàyyi ko fu sore rawatina ñi nga xam ne ay kilifa lañu di gani sëriñ bi loolu incha allah dinañ ko ànd ak ñañ ko daan àndal ci wàllu toppatoo leen diggante kër sëñ Tuubaa gi nekk Daaru Manaan diggante kër sëñ Tuubaa gi nekk héliport diggante kër sëñ Tuubaa nekk ci jumaa yi loolu lépp ay réunion la yoo xam ne ñun comité de pilotage bi dinañ ko ànd xool nu mu gën a rafetee ñu ko noonu. lii daal mooy ay kàddu yu néew yoo xam ne la ca desaat rek mooy soññaat suñu bopp ba nga xam ne dañuy ànd ak sëriñ bi ci fonk gi mu fonk bisbi bi te xam ne loolu des na ko def ci ñëw waaye des na ko def ci teewlu fa nga ne dafa mel ni bis bi day taxaw taxawaay yi boo xam ne ci ñun mooy nafa nafaytal aza an nii wali suxta mat la bi fala budde min shukrin bi zikrin wa tajwidi nga xam ne lii day day doon suñu wàlluk bopp boo toogee ci sa kër sax ci sa ruum nga jàng xasida santale sëñ Muntaxa ndax loolu da dul mën a ñàkk ndax ndax ndax ndax ba sëñ Tuubaa di bind di wax ne bil Mustafa lii banaa xudduusu madrasatan bihaa yazurul azaa wal jëxlu wal kabadu kon tey jii jàmm ju waay am nañ xam ne lii moo ñu ko may euh, wér gu am nañu xam ne lii moo ñu ko may fan wu gudd wu ñu waay am nañ xam ne lii moo ñu ko may kon cant gi sëñ Tuubaa ko moom ñu ngi santaat suñu kilifa yi bu baax di feddiluwaat suñu laxasaay nun dongo yëpp nag di xam ne Hizbut Tarqiyyah wax naa leen ko bu ñu nee moo organisation ku ci génn sa bopp ya ko ci génne waaye man de ëppale wu ma ci kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.